gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi suivre Rmo Sport ñu war a ñëw ak ci benn vidéo wax ci match Nicolas Jackson bi nga xam ne ma ngi ca Chelsea tey Chelsea di doon jàkkaarloog Manchester City Champions Premier League bu Angleterre. match bi nag pour l'instant 2-2 la ki nga xam ne mooy Nicolas la ca match maanaam coach bi dafa gëm Nicolas Jackson ba saaru match yi mel nii tey départ loon Nicolas Jackson malgré Nicolas Jackson li muy dóol bëriwul mais espace yi indi ci secteur offensif bi moom Nicolas Jackson mënul ñàkk ci match bi bala ñu ñëw ci loolu di ci gën a xuus dañuy wax yéen gan ci bile page yi ngeen te ngeen bës collège notification suñu objectif suñu gars yi Nicolas Jackson max bi nak pour le 2 2 la City am 2 kelsi am 2 xalé bi nga moy ne mooy Nicolas Jackson dugalugul bi waye mi ngi def max bo xam man nañu nañoo wax ne dugal bi rek moko manki bu dugalee bi rek dana def max bu rëy rëy ci contre kelsi ak ñi nga xamante ne bi na ñoy Manchester cher City mu nek ben max bo xam ne maximum enjeu la max bu exceptionnel la tay kër si guddi tay tey bu yalla dafa mu dor ki nga xam moy Manchester City ah, day bokku euh, ci bi nga xam dañuy gën a am yaakaar ci la nga xam ne mooy prime league ba ndax guddi yi moom Chelsea mi ci position boo xam ne position bu abordable la bu gënee liggéey gën a euh, euh, di dóor ay maxi ak li ñuy niir bañ a bari mën naa xeex ba ñëw ci trois équipes yi nga xam ne war ñoo mën a dem ligue de champion kon na xale bi nga xam ne mooy Nicolas Jackson guddi yi mi ci ay guddee malgré bii mi dugal sore na waaye nag performance yi mu nekk da cee constant muy dribble passé frappe ak ambition yu yi nga xam ne moom mi ngi ci moom moom la Jackson kon daal franchement la Jackson guddi yi soxla na ñaan bu baax a baax yàlla musal ko ci cat aar ko ba mu yegg ci li nga xam ne mooy niveau bu exceptionnel ndax guddi yi dafa bokk ci xale yi nga xam ne war nañoo boor Sénégal fële nga xam ne mooy Coupe d'Afrique ba war a am ca Côte d'Ivoire Sénégal jëm kaa jilaat ñibbisi kon xale bi nga xam ne mooy Nicolas Jackson soxla na ay ñaan yi ah. ñuy suivre Rmo Sport ngeen xaar ci yeneen vidéo ak yeneen numéro ak yeneen jàngat du ñu bàyyi dara ci suuf Sénégal yi merci beaucoup wéen di abonné merci merci merci